société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen di may ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyantoo yéenekaay gi di Rewmi Quotidien ci xët mu njëkk mu ñu fekk fa Ousmane Sonko ndax ginnaaw bi ñu ko tëjee lu toll ci juróom benn weeri kasu yoo xam ne du ko tëdd ci coow li nga xam ne moo dox digganteem ak Mame Mbaye ci 29 milliards yu Prodac yi ginnaaw nag bi ñu ko tëjee am na ñu bari ñoo xam ne ñoo ngi doon lam-lamee ndax Ousmane Sonko dina mën a bokk ci élection présidentielle 2024 yi nga xam amul kenn koo xam ne mën na koo tere nekk candidat ci élection présidentielle yi nga xam ne moom la ñu dëgmal loolee dama bëgg mu leer te nag ñi nga xam ne ñooy samay farandoo loolee dama si bëgg dalal seen xel maanaam yàlla sunu borom rek moom mën a tere nekk candidat ci élection présidentielle 2024 Ousmane Sonko nee na nag ñi nga xam ne ñooy ay militant ma maanaam bàyyi leen détail bi ndax bëri ci loo xam ne ay ruube la ki caaxaan te jamono ji caaxaan samay militant piège saa su nekk da ngeen siy tàbbi bu leen siy tàbbi farata ji la moom Ousmane Sonko nee na jamono ji nag da a war a xam ne am nañu doole joo xam ne mën nañoo bloquer réew mi ba kenn du mën a gouverner Sénégal jóg leen ñu taxaw Ousmane Sonko nee li ngeen si xamul sax mooy Macky Sall jamono ji dafa dafay jéem a mel ni ku sonnul waaye sonn na ba maara détaale yéen kaay gi de las xëy di ñu xibaar naa ñu Ousmane njiitul Pastef ni ki résistance bi nga xam ne moom la yàgg woote tey jii la ko gën woote journal bi de Les Échos moom maire bu Ziguinchor nee na amul kenn koo xam ne mën na koo tere nekk candidat ci élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la yéen kaay gi de Le Quotidien xëy xibaar naan ñu Ousmane Sonko jamono ji nag dafa bëgg a mbedd mi mën na la Ousmane Sonko ci mbedd mi la woote ndax jàpp na xeex bi xeexu mbedd la yéen kaay gi de Le lenn loo xam ne mën na maa découragé loo amul lenn loo xam ne mën na maa téye yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko daat nay woote nee na F24 rassemblement bi nga xam ne woote nañ ko fukki fan ak ñaar ci weeru mai maanaam 12 mai Ousmane Sonko nee na bu kenn tardé na ñëpp ñëw ndax nag il faut ñu amal rassemblement boo xam ne dina rëy génne xeetu rëy koo xam ne musuñu koo gis ci Sénégal loolu la Ousmane Sonko woo ñi xam ne ñooy ay ñoñama yéen kaay gi ñu na Sonko est le symbole du combat de Yewwi Askan mënu ko wax te tuddoo Ousmane Sonko yeeyu askan wi nag tasul tey tasul ëllëg ndax ñun famille la ñu Khalifa Sall mooy wax nee na ñun ay xarit la ñu Khalifa Sall mooy wax yéen kaay gi di bés ñu xëy dañu xibaar naan ñu coalition yeeyu askan wi ni ki dëmb daat nañuy wax ne dinañu amal manifestation le 19 mai yéen kaay gi di source ñu xëy fekk fa ay dëmboo ca nee na yeeyu askan wi Ousmane Sonko la maanaam campagne bi nga xamante ni moom la ñu génn ñu bari nag dañ doon sàkku naan ay dëmboo waaw waxal ma Ousmane Sonko mu ñëw sama gox ndax ma mën a gañe ndax ñoom ñëpp xamoon nañ ne ko Ousmane Sonko jaar sa gox rek di nga mën a gañe ay dem mbooj na jamono ji nag dañoo war a reconnaissant mën na la gis nga war na ñoo gore mën na la nañu fay naar bi xoromam ndax nag am na liggéey boo xamante ni Ousmane Sonko liggéey na ko ci coalition Yewwi Askan Wi mën na la gis nga ñun ñëpp ñoo si teg bët nañu bàyyi mbaadoo la gi kàddu yu ay dëmbooj la yéen a kaay turbina xëy duñu xibaar naan waa ban Khalifa Sall lañ mën a gëm ndax Khalifa Sall nee pare na ngir dem sa dialogue bi te dialogue a a dem te ko Khalifa Sall a dem tey te nag Khalifa moom nee na dafay jàppale Ousmane Sonko ba pare bëgg dem sa dialogue ba <laughs> aya bi mbang sa tala kurusa yéene kaay gi di réew mi ko di jeex xëy di ñu xibaar naan ñu affrontement bu doy waar moo xew diggante gendarmerie ak ñi nga la affrontement yi nga xam ne moo am ci askan wi nga xam ne ñooy yeewoo Ngor ak doy na waar génn xet doy waar goo xam ne maara détaale journal bi nee na li yàq Ngor bëri ma ne la gis nga ñu fa teg loxo état de siège kenn munta dugg kenn munta génn mën na laa gis nga askan wi nga xam ne ñooy yewoo ngor ñoom nag ñaawlu nañ bu baax a baax ji ni nga xam ne moom lañ leen tëjee ba seen xale yi munuñoo jànge xale yi dëkk ngor munuñoo jàng de journal bi nee na ñi nga xam ne nag ñooy force de l'ordre yi askan wi ñaawlu nañ bu baax a baax gi nga xam ne moom la ñu dugg ci biir kër yi maanaam di dajji buntu yi takk der yi dañuy dugg ci biir kër yi yi maanaam di song askan wi ca yi am am na ñaar ñoo xam na ñàkk nañu ci seen bakkan maara day taali inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yéene kaay gi dala te mooy xëy duñu xibaar naan ñu mbir mi ni ki démb dafa mujjee dégénéré ma ne la dafa mujjee ëppi loxo yéene kaay gi di Rewmi Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu en tout cas li amade sall lu toll ci six mille nañu bañu ñu si nopp bu ñu sañum ngeera yéene kaay gi di bi tàng na lool ci diwaanu Ngor mën na la gis nga démb nag waa wakaam ak waa yoof ñoom tam dañoo mujj soobu ci xeex bi yéen i kaay gii di libération xëy dañu xibaar naan ñu démb ci guddi wakaam na jër yoof tàng na jër mën na la manifestation yi mel ni tulleeg màlle yéen i kaay gii di lii quotidien xëy xibaar naan ñu am na ñaar ñoo xamante ni faat nañu leen bu ñu sukkandikoo ci président Ngor Dabo maara day taali mbir mi doy na waar lool yéen i kaay gii di le quotidien yor yor xëy dañu xibaar naan ñu ñaar ñi nga xamante ni nag ñoo faatu ci diwaanu Ngor mën na la bal lañ leen door bal lañ leen door am na ñu bare bare ñoo xamante ni am na ñu say gaañu gaañu yoo xamante ni maara day taali ma ne la ay blessé grave ay blessé yoo xamante ni maara détaillé yéen a kaay gii di réew mi ko nga xam ne mooy adjoint wax ne nag ay bal la ñuy jël di ko tiire ci askan wi ay journalistes yoo xamante ni ñu leen di gazé leen di saaga ma ne la gis nga takk der yi dañoon saaga journalistes yi di leen di gazé ay grenade la krémagene mbir mi doy na waar journal bi xëy dañu xibaar naan na am na ay moor am na ñu si ñàkk seen bakkana yéen a kaay gii di las na xanaa déggoo ma am na ñaar ñoo xamante ni faatu nañu ci yéen kaay na Ousmane Sonko jiitul Pastef dugg na ci xeexu ngor bi mën na la ngor ak gendarmerie Ousmane Sonko dugg na ci xeex bi rek ndax Ousmane Sonko nag ma ngi woote solidarité ak askan wi nga xam ne ñoo dëkk ngor Ousmane Sonko nee na askanu am dignité Ousmane na taxawaay bii nga xamante ni moom la la gis nga bu ko Sénégal yépp amoona benn guddi Macky Sall du ko def ci Sénégal ndax nag Macky Sall dafa violent Macky Sall ku soxor la kaddu yi Ousmane Sonko la du samay kaddu damay nettali journal bi nag nee waaye nag Macky Sall ci boppam moo amul benn gàcc sàcc di tiire ci kaw askanu Sénégal même télévision yi Sénégal ñemeetu ñoo wane sax li nga xam ne mooy manifestation yi loole nag doy na waar yéen kaay gii di direct news xëy duñu xibaar naan ñu ñaar ñii nga xamante ni ay ambassadeur lañ de la culture sénégalaise di Fatou Guewel Diouf ak Kéba Seck ñoom nag dañoo bëggoon a tukkee waaye nag dañu leen a li nga xam ne mooy visa ngir ñu dugg Paris la France journal bi nag nee na loolee doy na waar te nag ñaari artistes yi na la gis nga concert la ñu waroon a tëgg ji xam ne nag ñooy promoteurs yi ñoom nag jot na ñoo jaay li nga xam ne mooy billet